Mountakha Diop di yëngu fii nii ci pale bi ah, wax dëgg yàlla ñu am lu ñu fi metti lool ñu bëggoon ko nag danoose wax ci ak ah, autorité dëkk bi ndax ñun kat duñu fajal dara suñu bopp lu dul ka dañ ko war a waxtaane kilifa yi fi ne mooy point bi ci njëkk mooy ñun dañu fekkoon fii ñu fi ñu commencé di fi liggéey biñ gisee fii mu débordé lool ci lañ dem man ak sëñ Thierno mi ak ñeneen ak sëñ Xaadim mi ñu dem ci mairie bi ne leen ñun dañoo soxla woon fii ci lañ nañu foofu de dafa débordonné bu ngeen ko manee def garaawaay aménagé ko ba mu baax mën nañ leen koo jox après ñu defal leen papier ngeen dem trésor public fay biñ defee loolu ba investir fi plus de ay 3 millions nga xam ne nii def nañ fi ay camions yi suuf ay garaawaay ba mbaar fi yëpp ba commencé suñu parking lañ jékki-jékki ñëw fi benn waay ñëw fi nañu da ngeen di jóg kuñ naan fàllu fàll mbawoor bi ñëwee sëñ Thierno mii la fi fekk menace yi mu wax nag ëpp nay loxo moo tax duma ci jaar waaye dinaa ci tudd ne nee na bu ngeen fi jugut ma boole leen ak Baye Fall mu metti ñu lool bu ngeen xoolee tey fii nii ku ngeen fi gis jëlut sax 5 ci biir euh, espace public bi ñoom jël nañ fi plus de douze mètres ci espace public bi te ñoom rek ñoo ko fi def xam ma ñan la waaye en tout cas ñi ngi fii ki koy garder nag ñi ngi fi bàyyi benn waay boo xam ne nii moom moom waxuma la dara waaye guddi gi ñaawtee yi mu fi def ak i rek maanaam jar na xeex ndax Touba kenn mësu fee xam ay naan sàngara ay tux cigarette ak di def loo xam ne ay ñaawteef la mooy li nga xam ne nii nag nee nañ moom lañu fiy def mooy Auchan waa Auchan bi de biñ fi ñëwee pare woon nañ pour def fi Auchan boo xam ne nii duñ fi def sàngara duñ fi def dara waaye baatub sàngara bañ ci tudd moo tax sëñ bi lépp lu mu leen waxoon mu génne ko ñun moom wax dëgg yàlla ñu ñu luyee ay privé lañ mënuñu sax wax seen tur waaye li ma ci xam mooy xam naa ne la propriétaire mooy Xaadim Kebe waaye ñoom nag moom nag dafa mandaté terrain bi ci ni ma dégg ay étranger yoo xam ne ay tubaab lañ ñoo ko war a tabax ñoo fi war a def centre commercial bi fi war a nekk du centre commercial supermarché ñu dafee amoon coow nañ def Auchan ci biir bind leneen ci biti noonu laa ko déggee deuxièmement ba li waral convocation bi fii dafa bari ay catastrophe barki démb rek fii la fi benn oto virage laal fi suñ benn xale fii ndax fii defuñu fi tableau de signalisation oto bu ñëw dafay coupé nga xam ne nii day def accès de vitesse gaañ nañ fi ñu bari amuñu fuñ koy jooyee rek fudut fii nii deuxièmement ba mooy li nga xam ne nii investir woon nañ ko fii nit bu fekkee danga nga ko war a yëkkati muy soutien de famille am ñu topp ci ginnaawam da nga ko war a aviser ne ko kat fii ak nangami jour dinañ leen fi jële ñu xam ko dañoo xëy-xëy jëlee ñu fi indi fi ñi nga xam ne nii xëy na ay boroomi doole lañ ñun nag loolu mën nañ koo muñ ndax alalu àdduna kase la waaye dëkkub Sëñ Tuubaa moom duñ nangu ku ko yàq duñ nangu ko ko yàq loolu moom na ko ñëpp xam dëkku suñ tubaab bi ku ko naree yàq ñu ànd ak yow waaw looloo tax nag bi ñu jëlee suñu décision ñu dem wooyi xuddaamul xaddim benn ci seen jëwriñ muy Modou Diop Diawbe mi ngi nii toog ñu daan ne ko comme affaire insécurité la dañ lay woo nga ñëw xool ndax ñun kat dëkk bi lépp loo xam ne nii dañ ko fiy dénoncé dañuy dem ci ñi nga xam ne nii ñoo yor war mooy dëkk bi muy xuddaamul xaddim ku ci mel ne police publique ak ñëpp buñ paree nag doog di dem ci nga xam ne nii nii mooy kilifa gi waaye lii du yara ki teggin sax du ay norme sax ñuy dem ci sëñ bi di ko wan lii man loolu sama xol mayu ma ko looloo tax ma ne nañ dajale mbooloo mi ñu wax ak sëñ Modou Diop Diaobé mu ànd ak yéen ñu ñëw wax suñu soxla buñ ko fajee baax na buñ ko fajut ñun nag wax nañ suñu soxla jàmm bi moom wax soxlaam la man ñu ngi leen gërëm di leen sant ci daayira bi ñu wax daayira Xudaamul Xadim ci ndigalul sëriñ Amsa bu sëñ Ablaye léegi lu sa teewaay fii bon gannaaw bi nga xamee ne ke woo na ñoom ñoo sàkku ci ma teew pour xool ñëw constaté li fi nekk bi ma tàggoo sama jëwrin bi ma ñëwee nag tekk naa fi benn hangar boo xam ne dañ ko miire dañ ko def seng waaw lu mel ne barricade de chantier la waaye man daanaka loolu sax du ma yitteel ndax ay chantier ay mbedd mu génn ak ay mbedd mu débordé loolu xam naa ni la mairie wala ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo koy toppatoo mais ñun li ñu toppatoo rek mooy insécurité ak li nga xam ne mooy tax dëkk bi gën a am war ma ci ñi nga xam ne nag dañuy fetteerlu bi ñu ñëwee itam wax dëgg yàlla li ma ko constaté xool ko ànd ak ñoom mooy dugg naa ci chantier bi gis naa ni euh, sàngara dañ ko fi naan dañ ay preuve yoo xam ne gis nañ ko fi léegi nag ñoom nee nañ bokk na ci li nga xam ne moo indi cause bi mooy miir bi ñu fi miir dugg ci di di ko fi naan dégg nga am na ci yeneen yoo xam ne tam gëstu nañ ko fi ba am na ñu ci xam yoo xam ne xaj na duñ ko mën a wax ci ci euh, ci kii bi waaye daal li nga xam ne mooy am rek mooy nii nga xam ne population bi def nañ ko bu ko ñëpp defee comme ni ko sëñ Abdou Samatum sëñ son bu defee ñoom ñi ñu def ko yeneen def ko ñu def ko buñ ko defee yaakaar naa li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi dana ko am mooy di dénoncer li nga xam ne moo am te neexul seriñ bi di dénoncer li nga xam ne moo am te dégg nga comme yoon daf koy tere euh, lu yoon di tere Euh, euh, di ko dénoncé ci ñun di ko dénoncé ci police di ko dénoncé ci gendarmerie ñu gën a collaborer ak population bi collaborer ak force de sécurité et de défense yi ñu fexee xeex li nga xam ne mooy insécurité ci dëkk bu sell bi di Touba euh, jëm ci li sëriñ bi tere mais encore jëm ci li yoon di tere. merci beaucoup. am na ci loo xam ne ñun danañ ko continuer suivi ko topp mooy wax naa ki nga xam ne moo moo ko moom ni ko bis ni moom nanga xam ni lii ñu fi def. di ko fi naan bay boo nga xam ni nañ ko nañ ko fi jëlee waaw am na nag lu ma signalé naan ma dañ fiy dugg am na tam luñ ma signalé leneen ni ma xay na am na ñenn ñu fi nekk ñoo xam dañ koy def comprendre nga kon nag problème bi posé mooy euh, ñun liñ ci def rek mooy di ko nemmi ku gudd ba am ci ñun ci jàpp ci ay preuve yu nee naa ko tamit booy def ab sance sance kenn ñu ko Touba mais booy def sànce di fa teg gardien bu fay xëy ak di wàcc di fanaan am koo xam dafay wàcc ku fay fanaan wax dëgg yàlla waruñoo bàyyi nit di burum lu ci biir di fa naan sàngar ak di fa def lu sëriñ bi tere kon am nga ci ay responsabilité yu leer a leer li ci des nag mooy euh, bi ñu gis dikkee tam xool nañ xam ni li ñu génnee ci mbedd mépp na loolu war nañ cee dikkaat mooy euh, mbedd yi nga xam ne dégg nga comme fu neex waaye dafay teg lu ko neex waxoon naa ko maanaam génnee lu la neex ci mbedd mi boo amee doole boo néewee doole boo génnee ñu ne doo ko fi teke loolu tam war nañ ci bàyyi xel waaw mooy mooy xam nga boo taxawee fi yow en tant que yéen intellectuel da ngeen xam ni accident am na fi ñaari yoon yoo xam ni koñ bël moo ko ku moo moo ko moo ko moo ko moo ko moo problème yi moo indi problème yi ay accident am na fi yoo xam ni kuy génn fële du gis kale léegi na li li ci li ci war rek mooy ñu xam ni daal euh, buñ buñ li ma doon wax rek maanaam buñ indi euh, li wax euh, nu ma ko mën a waxee waxeeti kumba am ndey ak kumba mu ndey waaw door doom làq doom maanaam xool ñi am doole ah ñu bàyyi leen ñu def li leen neex ñi new doole ñu leen yéen dem leen fële toogi fële kon nag loolu lu ñu war a waxtaane la lu ñu war a li may wax ni waroon nañoo am conseiller sécurité conseiller boo xam dañuy toog force yi toog sëriñ bi toog ñi dëkk dëkk bi toog ñi nga xam ne dañoo am lu leen naqar ci dëkk bi ñenn ñi toog ñu def conseil ñu xool lenn loo xam ni lépp lu ne ci dëkk bi loo xam ne dañ ko war def ñu toog ko waxtaane ko waaye nag bi ci jiitu mooy kenn wërta def kenn mënta fajal sa bopp kon fokk ñu ànd ak force de sécurité yi muy police ak gendarmerie. waaw xam nga li man waaw léegi nag li ñu leen di sant rek mooy li ñu leen di sant rek mooy ñu continuer di xool kon ne kon ne di kon ne di collaborer wu bu baax a baax dégg nga kon ne di collaborer wu di gën a joxe renseignement yi ñuy ànd ak moom ñun nag liñ ci war danañ ko def daa am loo xam ni mënoo ko wax ci ab télé akub rajo waaye daal nañu xam ni lenn ci population Touba lenn ci nekk ci Touba son nañ ci loo xam ni dégg nga la jëm na ci lenn lu sëriñ bi tere ak loo xam dafa jëm ci insécurité euh, loo xam ni war nañ ci gën a taxaw vraiment di leen remercier bu baax a baax. tey jii ñun ñoo jugaloo suñu bopp ñu ay ndaw lañ dëkk fii ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi doon ay taalibe sëriñ Touba ñu gis fi lu ñu naqari muy lii ñun xamuñu ko sax miinuñu ko ndax fi ñu fi lañ juddoo fi lañ yaroo xamuñu lii mais lii li ko li ko sabab nag li ko def it dinaa balaame ñi fi nekk ñuy santé bi moo xam ne moo fi nekk ñu lay naan sàngara waaye damay balaame ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko recevoir pare di ko di ko ànd ak moom ñi nga xam ne ay doomi dëkk bi lañ soo gisee loo xam ne bokku ci dëkk bi waroo yaatal ki koy def mu koy def ci dëkk bi war naa jël sa bakkan mais ñi ki koy def ak mu koy defal ñoom ñoo ñoo bokk toor bi li ñuy ñaan daal mooy te it duñ yem fii ndax dañoo bëggoon def délégation dem ba Cheikh Mouhamadou Mountakha wax ko wax ko li fi xew lépp seng bi lim ñu baare ñun ay chauffeur lañ dañuy dawal waa waaw nañ ko dindi wala ñu yemal fa war a yem bu ñu ko dindi ñoom ñoo xam waaye nañ yem fa mu war a yem bàyyil ñu mbedd mi ndax gaar bu mag lii ma fa jël lii lii li lañ fa fekk ñu 120 mètres bi ñu dindi leen fi kon war ñëw ba jënd lii bàyyi ko ci dëgg télé bi ñun ñuy dawal di am ay problème à chaque fois ci intersection bi ndax ci intersection bi la jeexee te lu jeexee ci intersection doo gis lu jeex ci intersection gisatoo yow da ngay dugal sa bopp oto souvent oto mbëkk la boo boo duggee ci route secondaire bi boo duggee boo duggee ci route secondaire bi ci grand route bi nga ñëw grand route bi intersection la intersection bi la moo ñu baare mooy lii nii dañu indi ay soc dañu indi ay problème dañu indi dañu posé lu ne ngir yàlla jëm Serigne Touba bu fekkee ñu ngi ñuy dégg wala kilifa yi ñuy déglu dañuy dégg nañ wax ci li mu gën a gaawee ñu jëlee ko fi. lii daal route nationale la route nationale baa ngi nii. ah. lañ fiy def fan ci. ñun ay sëfoor lañ ñun ay sëfoor lañ ñii ay place lañ yor kii moom moom place bii moom ñoo moom place yi ñii ñoom place yi ñu ay lavage beeg yëpp ñun lañ ci def fii liggéey lañ ci def liggéey mucc ay lañ ci def leneen xamuñu ko loolu liggéey rek lañ moo am lii amu fi te biir gii dañ fiy tox naan sàngara gii lu wér la man fii laay toog sama oto nga nee gaare fii laay nekk it si lu wér la du sos toog mi lu wér la du sos léegi ngir jëmi sëñ Tuubaa ñu dimbali kilifa yi jëlee fi lii wala lii ñun su population xale yi fi ne sëni fi nekk dan jugu si bopp mu ñu jugu suñu bopp ëpp nëpp ay loxo wasalaamaaleykum